Weñ si yoo weñ ak mbóot ñoo leen di may seen émission xalaas jërë ngeen jëf euh, yéen ñi nga xam ni yéenay euh, bàyyi xel euh, RFM 94 point 0 ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñi ñuy topp ci digital bi tamit jërë ngeen jëf suñu page Facebook RFM l'officiel xalaas moo ñëwaat ci beneen numéro ma ànd ci ak Mamadou Mohamed Ndiaye laata bandi yegg si Ndiaye maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar gi bu baax Ababacar maa ngi nuyu waa Sénégal. Mhm. di lu seen ànd ak rajo Futur Média di leen gërëm di leen di leen sant. Mhm. bu fekkente ne kii nga ma ko rek ma nuyu partenaire yi laata nduy bandi installé partenaires yi ànd ak ñun ci xalaas doon ci sponsor doore ko ak établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère yi nga xamante ne ji ñi ma koy faral di waxee ñoo indi vite cuuraayu bant bi mhm. nit ñi di ko taal mu leen di daqal ay yoo ba pare di bàyyi ci kër gi wala ci néeg bi wala ci salle bi foo ko taal yoo du fa am mais également dafay bàyyi xet bu neex mhm. cuuraayu bant bi doyu leen ñu teg ci pompe ngir mbóot yi ak euh, weñ yeeg yooyu Euh, ñu ne déet na waaye ñu indi benn crème boo xamante ne ji crème vite fait la looy diw ci sa yaram ngir mën di tàgg euh, tàggoo ak ay yow 77 555 11 11 77 555 11 11 wala 77 696 34 67 wala 77 euh, moo di établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère ñoo fi indi loole nga xamante ne ji kon moo di vite fait beneen partenaire ci xalaas mu di Green Card Sénégal li yombalal gaañi seen seenub tukki dem mmh. Amérique ci anam wu jaar ci yoon Green Card Sénégal du lu wér te wóor fukki at a ngi ñu yëngu ci loolu nit ñi di ci jouer di am chance su gagné ñu leen dugg nge ba ñu yegg bu ko defee jarul ay jël gaal ak i coono tukki wala nga dem réewum jàmbur amoo ay kayit ni ñuy def rek moo di ñu dem ci ñu stand yi wala ñu woote ci 77 027 22 22 77 027 22 22 Green Card Sénégal dem tenter seen chance euh, stand yi bari nañu kon ci réew mi ni ma ko waxee sànq daanaka euh, foo dem ci euh, Dakar boo demee ci monument obélisque am nañ fa stand ñoo ngi leen di xaar ngir kon ngeen mën a jouer est di ngeen am wërsëgu gagné green card rond point JVC ñoo nga fa rond point Abbas Ndaw également ñoo nga fa beneen partenaire ci xalaas mu di euh, ki indi téléphone bu doy waar téléphone bu yéeme bi di Airfa Airfa mhm. euh, di téléphone boo xamante ne ji lu nit di wut ci téléphone rek mu ngi ci téléphone Airfa bi rawatina bu bees bii nga xam ne moo di euh, nouveau modèle fa mobile alo 4 Pro nga xamante ne ji soixante dix neuf mille lay jar eggul sax quatre vingt mille ba noppi nag dañ la koy garantir treize mois. Mm. Euh, beneen bi ci topp mooy ñu am service après vente air care nekk avenue Lamine Gueye euh, cent jours yi topp ci yi ñu la jaayee téléphone bi maanaam ñetti weer après ak fukki fan lu sikki téléphone bi da nga leen koy yóbbul ñoo la koy defaral téléphone bi nag li ci nekk moo tax ñëpp fi mu ne bëgg ko parce que bu ñuy wax ay mémoire soixante quatre giga xam nga loolu euh, batterie bu bu mën a yàgg lool quatre mille cinq cent milliampères. Mm-hmm. loolu dafa am solo connectivité 4G double SIM ak quatre caméras mooy téléphone Airfa mobile allo quatre pro aba Airfa la li xale yi jël léegi te jógtee ko euh, TikTok beeg réseaux sociaux yeeg Instagram yeeg yooyu yëpp moo ci gën bu foto moo gën a leer bu filmé tarkal la dootoo ko def baan maa ngi lay ziar. maa ngi lay bëggee sa waa ji. Mhm. di lay ziar di de Touba et de Ngaabu. Mm. ñu koy ziar bu baax a baax. Mm-hmm. waaw ak ay jàmbaar. waaw jàmbaar la moom koy. déeg ci guddi la jógee Touba. door noppalogul door déclic ñëw door. noppalogul ñëw ci tel noppalogul de ki dama koo gëm de. yàllaa ko mën rek. waaw mu ne ko yalla yàlla suñu sëriñ ba sëñ Abdou Fatah Mbacke lu mi ngi leen di nuyu. ah ñu ah, ko moom bu mu ñu nuyu bàyyi ah, ñu nuyu ko rek moom mu fay ñu <laughs> ñu ngi lay nuyu yow fay ñu rek ñu ngi lay bu baax a baax Mbacke Balaye sa di nuyu de. mbaa ah, baax la Mbacke Balaye boobu nga nekk. di yóbbul borom daaru. Mm-hmm. nga sax ci. waaw nga sax ci ndam rek nga ci yam. jaajëfati Mbacke incha allah jaajëfati Mbacke. yow daf laa sopp sopp boo xam ne bu déggee nga naan sama ñaaw bi day am lu ko naqari. déedéet waay parce na rafet ci xol la. réew mépp am nañu leen métti waaw réew mépp am nañu leen métti. <laughs> yéen a ma koy kaajoo sant yàlla rek. nee na ko yéen la rek. yéen la rek euh, euh, màggalu daaw def naa leen ko cambriolé woon. ko kan si bi mu demee woon. waaw bi mu demee woon la. mooy dafa bawul kenn. waaw bi mu màgg liggéey woon la ren ma kër gee ànd. dafa bawul woon kenn. <laughs> ren ma kër gee ànd. kër ga ngay yóbbaale. <laughs> moo gën de. kër gi ànd de. njaay lu xew fi dañuy dellu ca baax yaay. baax yaay bay jaay bijoux yi waaw ma ca bijoux ya. femme yi baax yaay bijouterie la wala couturier. baax yaay bii ñëw moo doon ñëwal masque mbargaan max. mbargaan mbargaan waaw vesti Macky Sall yi ma doon dégg. Euh, kii euh, baan nga hmm. ni baax yaay. non euh, damaa gis ay image ah waaw yow Ndiaye mi la Ndiaye la ma ko gën ah kon baax na damaa gis ay veste yu ëpp ñu naan ñu ne baax yaay couture. moo tax bu dee bu Macron bi Yves Saint Laurent wa ko ñëw. waaw waaw bu dee nag euh, baax yaay miy ñëw Max la daan ñëwal Max ma daan nekk seen TV. Ah. Euh, <laughs> baax yaay bisu tëri mi la nga ni. nañ ko déglu gars yi dégloo nañ ko démb. mais ba léegi femmes dañoo bari bari koo xam ni xam naa ni ñun ak ñoom rek dañ ciy continuer nii rek ba kër yëkkaru mbir yi di sotti euh, déglu leen femmes yi te di ko xamal ni ko nag combat bi dañ koy porter ba fu mu yem neex ndax dañuy teel xëy di guddee wàcc. ñaanu ñaanuñu taxawaaluwuñu defuñu lu neexul suñu borom. benn genre collectif collectif boobu ñaata plus de trente personne te am na ñoo xamante ne ñu nekk ci diaspora bi. ñooñu ñëpp problème bu baax yaay visiteur yi. soxna si yow aussi yow dafa mel man cinq cent mille laa si amee. Mhm. waaw man moom xawma sax ñoom ñaar ñëpp xaw ma ci kenn dama yor sama xaalis rek pour jënd ma dem euh, mu defar ma facture bi ma delluwaatee di complété. ñu ne euh, du ñu nangu cinq cent mille yi damay recommencer waat à zéro ba ñu ñuy toog fi ñëpp xamante wuñu dañu daje rek bokk benn naqar bi nag te ñi ñëwul ñoo ëpp fuuf ñi ñëw moom daal xool na ne xam na ne ay jigéen la ko séqal te jigéen nay am dafa dafa dafa dafa dafa dafa yomb mu teg ko foofu boo ñëwee da yuuxu doo sax toog da yuuxu euh, baax yaay euh, budgétaire Bas Jànqa du la sax amul sax négociation ak yow ñàkk na kersa bon na nee na kee kee daal lay régler problème am ñun ñun ñun nañu dem wax ak kee te moom moo fi tegoon kooku ñun ko man man boo ñii xëy na xam nañ ko mais man xaw ma kooku man sama xaalis laa yor dem déposer sama 500000 sama facture ngi nii mais daal boo ñëwee daal ak wax bu ak wax bu wax bu naqari la la koy wax bu la mënoon a dóor sax dina la ko def dàq la ci xaj comme nit ñi non ba ja comme comme comme xamul jigéen bu la mënee dóor sax dina la ko def billaay wallaay dama demoon foofu dama jóge woon lu ko doon jënd ji takkaay dem ba foofu ñu ne jaaro léegi prix bi dafa yokk fekk ma yóbbu woon sept cent mille après ñu waxaale ba mu ne neuf cent un million yu manqué daal après ma ñibbisi mu nekk janvier ñu téye yoon yi bi ma ñibbisee ñu téye yoon yi nag bi ñu korité ba pare après bi bàyyee yoon yi ma woo ba jot moor ci boppam ci ma joxoon sama xaalis mu ne ma jamono yi moom ci làmminam man damaa jël congé waaye sa jaaro moo ngi ma denc ca place ba boo yeggee rek boo joxee mottali bi incha allah dinga ci jot ma ne ko waa baax na dinaa ñëw fii trois jours après ma dem ma woowaat moor jotuma ko ci ñaari fan bi woowaat ko woowaat ko jotuma ko am na keneen ku ma fa xam ma woo ko ne ko waa man damay woo moor rek duma ko jot te maa war a jël ci samay takkaay ma moor dafa am ci lu mu nekk ma ne ko am ci lu mu nekk comme lan moo wax naa ak moom ba mu ma damaa jël congé mu ma ah, moor de jëlu congé dafa am ay problème ne sama jëkkër mënaguma dem ndax woo naa moor jotuma ko am na ku ma woo di ko laaj ani moor maa rek jotuma ko mu ne ma moor dafa nekk ci ay problème si laa demee takaar bi ma demee ma ngi fa fekkee beneen gérant bu tudd Moustapha moo ko fa fekkee ma wax ak moom mu jël suñu facture jël suñu numéro somme bi ñu am yépp waaye bob ba léegi dinaa la woo dans di jours rek lay wax wootewul defut dara patron bi nag boo ko waxee mu ne moom mm, yoonam nekku ci lool man ko turu bijouterie bi nag ndax ñin dañoo ñëwoon bijouterie baax yaay rek moo nekk sañu facture moom lañ jox suñu xaalis kon ki am problème ak ku amul problème yéen seen biir ngeen ko war a lijjanti boobu ba léegi nag nangu ñoo jox seen takkaay nangu ñoo jox seen xaalis boo waxee ñu ne moor dañ koo téye ñun nag xamuñu ndax ñun suñ turu moor nekku ci suñu facture tur bi nekk suñu facture mooy bijouterie yu baax yaay moo ñu jaay sañu samak sañu lépp moo ngi nii waaye ñoom depuis bañ jëlee lool dañoo téye suñu xaalis téye suñu takkaay boo leen woowee ñu naan la dañoo nekk ci problème dañuy régler dañuy régler waxaatuñ la dara Hmm? dégg ko. foofu lan ne de. ah baax yaay kii te jeexagul de. Hmm? dañ leen màggal gee tax rek ba chaque jour ñu jox leen ci benn rek parce que femmes yi nga xam ne ñoo am problème bu mel nii ak moom dafa bari dañoo bari te suñu demee duñ dégg maanaam dégguñu ci lu leen neex. lañ dañ jul déggee lu leen neex. non waa ji da leen dul wax leen neex wala. waaw waa ji waaw dégg nga ko ne waa ji da leen ne jànni ne leen amut ak joxuñu ko xaalisam du moom lañ jox xaalis bi kan jox xaalis bi ma nga arrêté nañ ko ma nga kaso. ndax waa defe naa waajee ko porter plainte. Mm. mais tey ji waa ji nga xam ne moom moom place bi. Mm. defar fa ay facture teg fa. teg fa benn nit nit kooku xale yi jigéen ñi di ñëw di di ko di ko aar seen xa seen yëf. cinq cent mille deux cent mille quatre cent mille deux million trois millions. waa jooju ci boppam euh, yow nga bëgg a dégager say responsabilité te moom place bi loolu moom xam ma nag nu ñu koy lijjantee mais yéeme na te famille yi ci gisee ñii ay jaaykatu jën lañu ñii ay jaaykatu cuuraay lañ ñii jaay ay katu ci xam nga famille yi débrouillé rek te bëgg or loolu mhm. euh, loolu la mais nag euh, ba ba bitim réew am na ci ay femmes yoo xam ne nit ñuy contacté ba ak région yi léegi man sama problème mooy mhm. waa ji ñuy tuumal démb ba tey mhm. moom lu ko teree wax ah man contacté naa ko de nee na am na lu amul lu mu ciy wax amul amuñu ciy tontu yëf yaa ngi justice te kamu kamu ka kamu kañ jox seen xaalis arrêté nañ ko. mais moom daal nee na ma du ci wax moom kay audio la ma ko def sax gannaaw dañ moom nag du ci wax. donc dañ koy dañ continuer nii rek bu mu mën cee wax. mais lii baaxul ci moom. ah baaxul kay moom. xam nga nit loo gàtti gàtti wax. wala loo bañ a bañ a wax ci mbir. Mhm. nga yor benn business. mu am tour ci réew mi. Mhm. nga am eh, di jëflante ak ay ay ay ay ay nit ñu mag. xeetu client bu ne yàlla wërsëgale la ko. Mhm. am lu jóg luy gàkkal sab der. Mhm. bu dee ci yow la jugee. Mhm. day baax nga leeral ko. ne serait-ce que par respect pour say client. bu dee jugewul ci yow. day baax nga leeral ko wax ni mu demee. ndekam l'armée ñoo toog fii leeral situation. donc keneen voilà gis nga loolof naan ku ba yëy yaxi bukki xamal ne yëy nga. yaxi yëy waaw. dëgg la de. ku dem ba l'armée toog di la wax situation di la jox ni mu demee di la leeralal. nga mën a wax situation voilà keneen ku ñëw. ñu àkk ñu àkk si la nga ne doo ca wax. Hmm. boo tëddee na nga xalaat ñàkk wax gi lu mu lay jural. Hmm. ak wax gi lu mu la mën a jural. Ah, xam naa dina wax xam naa ni moom hmm. bijouterie baax yaay bee. ne leen ko bu dee respecté nay kiliyaanam. waxuma sax ñi mu amal problème de parce que mi ngi ci justice moom jarul sonn. mais kiliyaanam yi nga xam ne ñii dañ ko dénk seen xaalis ñii moo leen di jaay ñii dañ ko def confiance. na wax ngir ñooñu xam exactement. ce qu'il ne est ah, na leeral moo gën a rafet de. war naa leeral man famille yi fi gis nga famille. famille yi fii ñëwoon keroog dañoo dañoo bari. fii la ñu ñëw fees fi dell te da et dañoo groupe ubbi groupe WhatsApp créé benn benn collectif war a jàkkaarloog waa ji mais nag den nee li leen metti nag li leen metti mooy fu ñu dem den naan leen waaj ji dafa am doole man loolu man moo ma jaaxal dëkk loolu ah loolu lañ leen di wax ah waa ji dafa seen affaire bi du mujj fenn loolu lañ leen di wax tout le temps leen nag loolu lañ métti waaw femme yee ko wax fu ñu mënti dem hmm. den naan leen waa ji dafa am doole du mujj fenn waaw nag am doole mooy lan ci réew mi Euh, la xewoon fële. Fati. dimbale ma dëkk ba. te Jidda. Jidda waaw. ñii baan baan digg naa Jidda ngi toj de. waaw ji waaw Jidda Jidda ñoo ngi ci ñoo ngi ci recoupement yi ñoo ngi ci recoupement yi. pare di yëngu na de na xam nga xam nga xam nga ñu ngi ci ay problème yu tar. non non. ah kay ah kay baan wax rek. waaw déet wax non élément yi pareegul. déet baan am na lu pare ah. jox ñu ko. Ah. non non non déet bàyyi baax yaay mi te dem ci baax ba. dé dé <laughs> dem Jidda non non problème bi da pareegul parce que. ñaan problème yi pare na. trois parties la. voilà bu ay sos amee. Oh, non trois parties la tuuru waaw. <laughs> Ndiaye. xolo ñoo ngi. même buñ dee ay kilifa la baan problème am na. non de problème am na mais problème bi mooy trois parties la te kenn ku ci nekk da nga war a wax. fi mu nii dañoo nekk kilifa ya fa nekk nee nañ ñoom nee na dañu woon baan may ñu ñoo ngi koy regle ci suñu biir mu li leen gën a mooy mu bañ egg ci presse bi. suñ ko mënee régler seen biir suñ juboo seen biir fii ak lënd suñ juboo seen biir baax na su fekkee jubóowuñ seen biir éléments yi ñu yor ñu daaj koy. ñu daaj koy jox ah non non ànduma ak yow parce que problème yàgg na fee am dañ koy xalaas. ba ci suuf suñ ko mënta régler ci suuf ci lay doog est-ce xalaas ñun de maanaam organiser wuñ ci xalaas bi rek pour pour pour pour di yàq su mënee da euh, faju ci suuf ñu réglé ko suuf juboo ci seen biir. jarul mu ees la tax nekk jidda nangoo ko wax joxe. mais ñeme naa ko joxe. joxe ko mais ne joxe ko doo jotugul. yow xëy nga xam nga yéen da ngeen am information ci rédaction mais da ngeen maanaam da ngeen koy togg ba mu ñor. ni togg gi ma nekk di togg nii ñoragul. mooy xeeti info yu ñu naan info sous embargo. voilà loolu loolu yéen yi la. voilà ñun animateur lantinoor la ñun lu ñëw ci diw dafa war a seen. xam nga nag man nag xam nga man nag xam nga man animateur laa. Ah. mais maa ngi soo comprendre lu bari. mais yow explique. <laughs> non non non non c'est <laughs> xam nga xam nga man xam nga Aba. Aba man damaa doon ani animateur boo xam ne <laughs> uh-huh. man bu génnee dinaa la nettali ba ñu woloo Baye Cheikh ci kanamu juge ba. Uh-huh. Pape Cheikh Diallo kanamu uh-huh. juge ba. bu génnee naa la ko nettali. xam nga man damaa doon animateur boo xam ni. journaliste yi ma tàggat. journaliste yi la tàggatee lu mu ndaw ndaw di nga amus tuut. Mhm. loo xam ne di ko ca kii. maanaam bàyyi bu ñu la tàggatoon da ngeen ñu jàpp di ñu dóor. mais ba tey du tee nekk man man foo journaliste yi laay dóor laay laay laay laay de. jeex. Ah, jeexu fi. yàlla tooñ jeexul su tooñ jeexul wulli du jeex de. nañ dem ci xalaas yi dañoo mën a tooñ. comme nangu woo wax xalaas dem ci mii ngaan julde waaw ngaan julde jéey ay mbokk ma koy wër ndax maamam xaw ma baayam dafa gaañu mbokk ya miraas te wàllam di ko wër lu raar. ban yow loo ñu yabe ban. déglu ko yow ñu bëgg jidda nga ñuy wax affaire miraas. non jidda pareegul. miraas waaye mais yow jidda pareegul. sa déclic bee da nga créer say say say élément ba mu normal nga def émission bi. lu ngeen def baax na de. doxalal. ayca. man Aminata Dieye laa tudd man maa ngi dëkk fii Louga sanc ba. ñun sunu benn mag la ñuy laaj seet ñu ngi tudd ngaan julde jéey la sant julde jéey moo ko jur yaayam awa géey la tudd sunu maam nag jantaa bi jéey la tudd dafa génnoon àdduna léegi bi ñu defee miraas bi nag cëru papa moom moo ko moom xaalis bi lañu xamul fu ñu koy def xamuñu kuñ koy jox moo tax léegi ma xelal sa mbàjja ni ko nan dem xalaas xëy na du ñàkk nii suñu demee ah te comme àdduna bépp ñu ngi déglu xalaas dina feeñ pour mën a ñëw jël si paaram moom mag la de. jigéen la jigéen la ngaan jéel tudd ñu koy wax ngaan julde papaam lañ ko doon dàkkantale. waa parce que papa moo tudd julde jéey. moom ñun daal li ñu ci xam mooy mi ngi dakaar mi ngi dakaar parce que cité marine lañ ñu waxoon def nañ foofu xool suñu benn bàjjen bu nekk euh, dakaar ay doomam ñoom comme foofu lañ wër nañ ko foofu gisuñu ko ndax dañ bëggoon bu ñuy mutaas mu taxaw. biñ koy wër na depuis daaw ba ren ñu ngi koy wër gisuñu ko. ci lañ toogaay miraas nag léegi mais xaalisam daal moom cëru papaam moom mi ngi tege waa ñun nag bi papaam gaañoo te mu ñëwoon Louga 86 bi ñu koy mujj gis nit ku ñuul la te tuutiwul waaw nit ku ñuul la te tuutiwul bi papaam gaañoo bi mu ñëw Louga 86 ma ko gisee man noon la am noonu la meloon ñun ñoo koy ñaan rek képp ku ko dégg te yaakaar ni war nga ko mën a wax nga waxal ñu ko ko mu ñëw jël si paaram parce que xaalis neexu la denc amuñ ci moom benn contact wax dëgg yàlla ndax ñu ngi doon wax naan doomam takkoon na jabar côté marché ginnaaw raay mais suñu mag ñun ñëpp dem na foofu wër moom mu dëkkee côté marché bi wër na foofu ku mu laaj xamuloo ko ku mu laaj xamuloo ko même xaalis bi nii bi mu taxawee nii sax demaan na foofu seet mais gisul ci ma doo doogaay wax ma ñëw fii kay taxul ni maanaam réew mi de am na ñuy gëm yàlla ba léegi ba léegi kay am na fi de léegi waaw léegi nag lu ciy pexe. ah la ciy pexe toog déglu ndax dina yëglu. ah waaw ah baax na. Ah. xaar yàlla rek. xaar yàlla rek. waaw mi ngi noonu ngaan julde. jéey. ngaan julde jéey waaw su ko kiiyee rek suñu contacté ñu boole kook sunu. sama waa ji nekk fa xam nga baan lii xalaas la. lii xalaas la. xam nga li sol nii. xalaas la. na ñëpp xool ci ci ci ci RFM point sn. en tant que directeur. kaay xool ni en tant que grand journaliste. nekk RFM nekk RFI. waaw sol li xoolal Babacar Fall li mu sol. xuuxal jeeg. xool mais xoolal li Babacar Fall sol lii mooy xuuxal jeex sa sa mbaxal. ñu naan dress code man bu ma solee ji samay sol ñëw ci kër gi euh, dress code bi il faut respecter fi entreprise la col ko gi dañ koy jàngale école. Ah. tey du ah. bii dañ koy jàngale école. ban bii ni journaliste bi am na ay barab yoo xam ne bu fay dem. waaw yii la war a sol. waaw yii bari yan barab. <laughs> <laughs> yow. établissement waa kër Serigne Touba Fall et frère mi leen indil gamme vite fait mi mën si yoo weñ ak mbóot ñoo leen doon may seen émission xalaas ci ko baraksan Dakar résidence de présidence de la République ci palais de la République résidence du de la République bi nga xam ne mooy demeure historique située dans le quartier Dakar plateau capitale du Sénégal construit en 1902 oui sama ne palais xam naa mu nekk la officielle du gouverneur général de l'Afrique centrale AF le porcelain Senghor Diatta 1964 Abdou 82 Abdoulaye 2012 Macky Sall depuis 2012 mu ñam fa ñëwaat fi nu xaareen ba xam kii woote la République kooku kan la war Alaaji Gora Diop di wootee fan. di wootee fii ci Kër Massar fa mbënd ma toje. Kër Massar génn. waa Kër Massar génn gi ci fii fi ci mbënd mi fi mu ne. ah waaw mbënd ma jeex na de. ah fan la jeexee da xanaa da nga fay xool fi de. yow xooloo ñu xooloo fi ñu xooloo xooloo fi rek ba pare bëgg wax di jeex na. ah jeexul. man aw maa ngi wax sax ana njiitu réew mi. njiitu réew mi dafa génn. kan laa mën a yóbbante ci moom. ah xanaa man mii la wuyu. ah dana ci jota bu dee soob na yàlla. ndax xam nga yéen ñi nekk ci pël bi di ngeen soxor lool. ma ne sëñ bi. ku leen mën yóbbu pour bu jot rek problème la. Eh, sëñ bi. waaw daa am looy wax wala amoo looy wax. waaw am man kay bëri naa lu ma wax. ayca wax ko gaaw. xam nga mbënd bi boobu ci digg ba commencé cee wax ndax xam nga ne la nga war a wax bëri na. ayca waxal ndax lii mosu fi am. waxal gaaw waaye nag li ma ci jaaxal. waaw man daal barki Demba Ndiaye dégg naa fa benn bu ci biir ndox mi. Hmm. moom daal budul am yeew. budul am hmm. di di di jasit wala muy hippopotame. yee wala jasit wala waaye foo ko gis. man daal loolu ma loolu ma dégg muy bërëx bërëx ci biir ndox bii. dégg ko muy buuf. wala wala muy muy muy ci biir ndox mi. yenn saay wàgg wi daal di daw. ñëwaat dawaat ñëwaat. wu dul jasit. te yow yow yow wuy ma da koo gis yow da gis nga ko wala gisoo ko. Ah, li ma loolu may séen daal di ko dégg. bu ah, dul am yeew daal. di di di di crocodile wala wala ko anaconda wala wala mu doon kiir rek wala mu doon hippopotame. yow daal gisoo ko daal da koo dégg rek maanaam muy pox poxi ci ndox mi. ba loolu daal muy pox poxi. mooy ci ndox mu vert mi. ci ndox mu mu ngi noonu nag jàpp nga ko. noonu doon ma ko dégg mu përëx përëx ci bi ndox mi ah, di ko naan ko bëq xëx. sëñ ba leer na la. ah man kay loolu loolu may seen di ko dégg ah bu dul jasit daal saa waay man war nañ cee wax de. xam nga daal sës ci bu àll. ay jësit te lu sës ci àll jaan jaanu fa. jësit ci biirum ndox. ah du man de loolu ma gis te te te bët yi daa rëy sax. yow gis nga bët guddi la woon nag ba ba timis kii waa ji dugg noonu la woon. da gis bët yi jàkk wala gisoo ko. gis daa bët yi waaw waaye bët yi nii xam nga guddi gi moo la dem tuuti. waaw. du jësit daal di jaan di wala wala kii. Hmm. wala wala bët yi dañoo sori anto dañoo jege yow. bu ci daal ci bu ci bu timis kii marché noonu. Hmm. bu ti xaw nañoo jóge yéente de. Hmm. bu ti jaan bu ti jësi bu gën a sorente. ah loo laaj naa la ko yow miy gis yéen leen gis. a ah bu dul jaan daal di jësi. sëñ bi si ndax. si ndax de sëñ bi si ndax si ndax gi kenn mënu koo daw de. Hmm. mooy burax burax googu may dégg rëq rëq di biir ndox mi. yéen saa yi mu ne bu burax burax ba mu yàgg daal di buufu ne puuf. ah bët yéen saa yi daal ma dégg ko de ah, waaye loolu daal bu dul gisit. wuy ma sëñ bi sëñ bi wuy ma. di di ko wuy ma wuy ma ah, ah. léegi votre correspondant na peut-être un promo. bay après waaye dama ko waxal sama yóbbante. ngay buuxoo ko burufu nii. day noonu. pile dix heures ci rajo Futur Média mbokk